félicité vraiment wax dëgg neex yàlla li ngeen ñëw seet si ma neex na ma trop surtout concernant Cheikhou Kouyaté quoi léegi nag moom vraiment vraiment soyez les bienvenus bon fi mu nekk yaatal naa la ci lépp nag lépp loo bëgg xam ci xale bi boo ma ko laajee incha allahu moom naa la ko wax léegi nag moom fi mu nekk maa ngi lay xaar say bon métier bi moom presque mun naa ne bi ma ci dugg noonu presque c'était vers euh, dix neuf cent quatre vingt dix sept bon jamono boobu nag ñu nekkoon ay xale yoo xamante ne que dama leen yoroon noonu mais après je me suis dit comme dama amoon benn euh, mag boo xam ne dafa nekkoon en France qui s'appelait Djibi Ndiaye c'était l'ancien capitaine euh, de la Jeanne d'Arc si laa ko wax ko ma ne ko dama bëgg benn ubbi benn école de football boo xam ne dama koy tuddee Djibi Ndiaye muy moom. mu accordel ma affaire boobu noonu après si laa commencé quoi. Mhm. way bari nañu ah <laughs> bari nañu de am na ñoo xamante ne ko wax dëgg neex yàlla ñoom folle nañu am ñoo xam ne folle ñu quoi parce que xam nga métier bi moom chance la rek daal. voilà donc euh, kii nag nga xam ne carrément mooy ndeyu mbir gi muy Cheikhou Kouyaté moom moo ci gën a feeñ daal mais am na ay Matar Kanté jaraaf la nekk actuellement sax jaraaf la nekk noonu mooy capitaine jaraaf mu taaru balde te euh, Tëngéej FC la nekk moom mooy euh, capitaine bi aussi woy euh, Laye Diène aussi tamit il en France moom tamit jaar na Douane ñaari tali Pikine Pikine la jóge sax doog a dem en France bëri nañ de Mohamed Mohamed Gueye aussi tamit il en France.

waaw ci côté sport waaw xam nga seen waajur ñoo leen jur parce que ñoom ñu leen fay mais wax dëgg neex yàlla seen waajur aussi tamit dañ maa seetaan ak ñoom wóolu ma waaye ci côté sport moom franchement parler moom wax dëgg neex yàlla moom pépé yi ba sañoor man maa leen yor ah, waaw. waay waaw waaw loolu moom dëgg la mais xam Euh, wax feeñ daal euh, am na yoo xamante ne que du ma ci xaw a bëgg a dugg noonu waaye moom ci la mu mën ma ngi ma koy defal de wax dëgg yàlla ci lu mu mën ma ngi ma koy defal de sincèrement sincèrement ñoom ñëpp la woon nag daan nañ fi fanaan daan naa leen regroupé bon vraiment vraiment bu muy metti daal man la woon quoi ci côté sport bi noonu. <laughs> waaw non ah, non bët yi ñoo neexatul rek yàlla mooy def loolu quoi kii maladie héréditaire la quoi ci man waaw bul jàppale Dior ñëpp xam ne carrément peut-être ñu ko defal ah. <laughs> yow yi nga xamante ne ñoo nekk foofu. Mm-hmm. forme mhm. eh. li nga wax noonu yëpp dëgg nag mais aussi tamit euh, xam nga Afrique dafa kéemaane quoi parce que ñoom ñëpp képp ku si doon waaj a dem sax dama lay wax ne di nga am cent mille baay am cent mille yaay am cent mille bàjjen am cent mille copain yàlla mooy def loolu am na ñoo xam ne nag dañuy topp loolu am ñoo xam ne duñu topp euh, duñu topp loolu quoi. mais man de wax dëgg neex yàlla o maak ñoom benn xaar ma yàlla te maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ki ngay wax carrément muy ndey mi léegi nii billaahi wallahi su fekkee ne dama koy nëbbal ma xam ne damay fen mais moom ci li mu mën dëgg neex yàlla mi ma koy defal suma ko wax loo xamante ne ko defu ko bu nit ñi jooy ay korite ki tabaske kenn xamul ak yooyu man jooy ma loolu yàlla mi ma tiim xam na ko te lii nekk sama kanam nii xam naa ko bu baax a baax a baax te xam naa ne da koy def moo tax wax dëgg neex yàlla mënu euh, kii wala ma ko quoi protégé wu ma ko de sincèrement protégé wu ma ko parce que mënul nekk joueur boo xamante ne que il est un euh, surtout nekk capitaine équipe nationale du Sénégal nga xam ne il est tellement connu may toog carrément nekk fii di ko protégé lii ma lay wax ni moom ci boppam noonu billahi wallahi la lay wax ni dina ko xam waay waaw waaw mu doon li nga xamante ne dafa rëy rëy rëy na yàqu. waay waaw waay. minime benjamin cadet senior. waay da yor ko sa fii ba suuf yëpp. waay kon tey jii yaakaar naa kooku maanaam ci li ko defal. amul kenn ku nekk foofu suuf xar yàlla ni ko defal loolu kon tey jii li war tey jii ah moo xam. da nga waroon fekk bien neigé. voilà Babacar nag gis nga fi nga fël noonu daf maa neex parce que xëy na am na ñu bëri ñoo xamante ne que sax sañu ma sañu sax laaj li ñu may laaj na mais li nga ma laaj ne ñu bëri nag dañ ma koy faral di wax rek di ko brosse waaye xam man dama nekk nit koo xamante ne ko aussi dama man lu ko ate doylu parce que man nit ki ci lu mu mën rek man ci loolu laa koy gisee même bu dul man am na ñoo xamante ne que tey jii nii mu ngi def ci ñoom lu baax a baax. ay way juróom kenn waxatu ko ay rakku papam kenn waxatu ko yàlla mi ma tiim xam na loolu tey jii kër maamam nga mu nekkoon noonu muy nekk euh, mu nekk koo xamante ne moo jur papaam mooy ki ñu ko tuddee noonu kër ga da ko defar ba mu rafet nice carrément nii wax dëgg neex yàlla bàyyi fa ay rakku papam ay rakku papam yu baax ñoom Youssouf ak Balla ak ñoom ñëpp vraiment ñaar encore papam ci boppam ak euh, rakk ji ay dara actuellement ni ils sont à Wakam Gandey villa la leen jëndal foofu yooyu yëpp noonu moom la mu am tamit man xam naa ko waaye du ma toog di ko fi wax mais su waxee su ma waxee ne ay copain am sax ah mais su ma waxee ne carrément nii ak nii la mel waaw ah, lu baax rek laa la ci mën a wax de waaye waaw mais man xam nga man boo ma laajee loolu dafay diis ci man xam lan moo tax muy dis ci man noonu parce que man nit ki ni ma lay gisee noonu laa lay jàppee franchement parler xam nga man du ma toog naan kaa mais fils defal ma lii wala lii moom moo mun a am xalaat boobu noonu. waaw li mu waa gis nga nag loolu moom moo nekk loo xam ne problème la fii au niveau du Sénégal quoi en domaine du sport parce que petite catégorie bi noonu la fédération sénégalaise de football xanaa léegi rek la mun a accorder sax euh, petite catégorie bi nii à cause de Mbaye Diouf Diakh le président de euh, de PS euh, kii Mbour Petite Côte. mais actuellement euh, euh, école de football noonu fii Sénégal kenn mësu ko reconnaître parce que doo affilié wu à la ligue de football doo affilié wu à la fédération sénégalaise de football su fekkoon ne ñun dañoo affilié woon à la fédération sénégalaise de football képp koo xamante ne que da nga ko yor mu dem droit de formation fu mu munti nekk ci àdduna da nga koy jot waaye comme que ñun moom amuñu woon loolu yàlla def ma nekk ASC Yego sous la houlette de Abdoulaye Touré Touré ku ne xam na ko yaakaar na ASC waaw foofu nag laa ko jël carrément yóbbu ko noonu pour mu football euh, championnat euh, du de football. Sacré-Cœur effectivement. Sacré-Cœur waaw. yóbbu ko mu jouer championnat au niveau de Yogo. jël coupe du Sénégal ak yëpp noonu. oui. <laughs> oui. ah yàllaa ko tax wax de waaye de <laughs> Eh. Eh. mais ban situation geen ma fekkee ni eh, bu baax a baax a baax voilà waaw effectivement waaw waaw. suba su ma dégg la xam effectivement waay di la ko ñaanal yow it. effectivement ñu ngi yóbbu gaa yi màkk quoi non man mënu maa demati su ma ko daroon jox tamit dama koy jox sama ah man nan laay demee ko dul gis nu muy demee màkk. waaw waaye wax dëgg neex yàlla aussi Babacar franchement parler nag sama garab yëpp nag moom wax dëgg neex yàlla ci moom lay jógee de. waaw mais xam nga boo waxee loolu day mel ni foofu moom mooy yebu noonu xanaa foofu amul ay aveugle amul ay handicapé lan moo tax ñoom fajuñu leen ba ñu wér. ah kay yow tey jii bu baax sax bu baax sax bu non bu baax sax avant tabaski rek la fi jógee waaw. moom bi ma koy yor sax papam il était en voyage quoi franchement. kon loolu moom dëgg a non man du ma nëbb de. waaw tey waaw ah, waaw man nee nga carrément waaw moo tax nga neex ma nag. voilà kon question bi nii. nit nga tooy waaw. nit yi nit ñan nit ñoo ko jugé ñoom xamuñu si man dara. parce que xam lan moo tax. dafa am ñoo xam ne dañoo dañ kumpa bugg a xam. waaye du man maa tax ñu xam. te duma leen ko wax ba illaa yow diini barke rasulullahi waaw waaw parce que parce que ñàkk waaw hmm. Hmm. waaw waaw d'accord euh, léegi ma wax noonu neex na ma trop noonu kon nag Cheikhou yaa ko dégg nii Babacar de moom mooy woo di ma gëtën nii actuellement nii mais naa la wax benn affaire nag nee na gisul dara loo def ci man waaye man wax naa ko li ngay def ci man xëy na nag àdduna moo demee noonu waaye man li ngay def ci man xam naa ko te yow sa bopp xam nga ko te dama la ciy gërëm di la ci sant dawuma nag wax ji dawuma question bi mais lam may defal dama koy wax franchement parler

tey doo ko am de yow kay boo ma joxul yow fu mu nekk yaa war a ñëw di am euh, yow yow fu mu nekk nii réseau yow kay tey li nga am ñu bëri bëgg nañ ko am mu tëla mu tëleen ah, ah. ah. voilà waay mmh. conscience effectivement déedéet bul wax lu mel noonu yow tamit nag yaaram sinon xam nga yow xam nga lan moo tax nga neex ma ci fi ngay jaar dafa neex. naay ah? sax. non sama wér yaram clean gisoo ma ni ma mel nii. waaw dama dul gis parce que xam nga fu mu nekk il faut que ma jàppandu noonu parce que. <laughs> non j'ai des nerfs sciatiques. j'ai des mais duñ dox. man maa ngi dox kon maa ngi sant yàlla ci loolu. <laughs> Eh, non eh. waaye li nga wax dëgg la de ay eh, Cheikhou sama tànk yi baaxatul samay bët yi baaxatul fi mu nekk nii gannaaw yàlla ak yonent bi dénk naa la daal sama bopp waaw loolu moom dégg naa lu kii la mais nag waxoon naa la ne moom balaa nga fee jóge nag moom il foog ma wax ak ki nga xamante ne kooku laa war a waxal bu baax a baax a baax te damaa bëgg li may wax nii nag moom moo gën a am importance sax li may wax Kouyaté bi ngay gis ne mu yaayam oh, oh, oh ma chère Viviane ku baax a baax a baax a ngi noonu ku reconnaissante mi ngi noonu koo xam ne fu mu nekk daf may gërëm te du ma ko doon woon sax gis Cheikh bu muy ngénte carrément ñaareelu doomam noonu ba mu fa demee si la ma wax la may wax noonu mais premier doom bi bu mu koy ngénte instant boo dafa fekkoon ma xawoon feebar noonu dewuma si la taxaw ci dëgg nit ñi foofu am ñoo xamante ne dañoo jóg di gërëm ñoo xamante ne que barke rasulullahi laa lay wax ne amul dara lu ñu defal Cheikhou mais moom ci boppam dafa génn taxaw carrément ni ne leen yi ngeen di wax man xawma leen man Assane Ndaw laa xam kon kooku man maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax a baax Viviane maa ngi lay gërëm di la sant Viviane ku baax a ngi noonu ku gore yaayu Cheikhou Kouyaté billaahi wallaahi sama xol laa ko tibbee nii di ko wax te lii ma lay wax ni il faut nga jàllale ko pour que moom mu dégg ko jàppale ma rek te yàlla tax ci li ma la wax noonu ci yaayam jàppale ma bu baax na jàll carrément bu jàllul rek non bu jàll. waaye. gis nga nag. Euh, waaye effectivement. Dakar Buzz. oui. Mhm. net bi waaye. waaw parce que démb sax ci boppam noonu bi ma woowee Cheikh moom woo na ko noonu moom moo toog sax accordel ma carrément interview bi nii dafa ne noo amul benn problème tonton Assane bu ñu ko laajee rek na wax li nga xamante ne loolu la xam ci man ma lay wax ne kon ku baax la ku gore la billaahi wallaahi yaaram Babacar yàlla mi ma tiim man mënuma ko waxal lu bon xëy na nag nit ñi fu ñuy gisee la mais xam nga nag lu jot yomb parce que na toog tey jii nii ma toog ñu naan war na la jëndal kër war na la defal nangam wala na defal nangam ma yàkkamti ba wax loo xamante ne naka su dul noonu la ëllëg ci biir mu bett maag loolu su boobaa man damay ruus. waaw ah, lan moo lay wax ne wër <laughs> Babacar hmm. yàlla tax gis nga nag wóor na ma wóor yàlla ne dina ko def te yàlla tax loolu moom maa la ko assuré waaw. <laughs> daat ko mel ni Assane Ndaw mooy euh, père bu xeebu bi rek ngeen ñëw ci moom vraiment di ko interview muy wax carrément li mu xam ci ko yaa teg yooyu yëpp noonu yéen moom yal na leen yàlla jàppale yàlla guddal seen pan vraiment vraiment ci li ngeen nekk nii yàlla na dema dema dem ba mu ëpp li ngeen nekk nii waaw loolu daal laa xam ne moom wax dëgg neex yàlla naa leen ko ñaanal. yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla fay jërëjëf jërëjëf jërëjëf Babacar